Mamadou Diallo maa ngi lay nuyu. waaye ñu ngi lay fay bu baax a baax allo Seynou. ma fàttali ne yow responsable politique APR nga ci Louga. waaye nag mm-hmm. président chargé des élections euh, ci COJER bu euh, Louga. fekkee tamit euh, Moustapha Diop. am ñi nga xam ne ñoo bàyyeekoo fi nga xam ne mooy ci Mamour Diallo gannaaw coow li amoon. ñëw fekk si Moustapha Diop yow lan nga ñu ci mën a leeralal. la allo Seynou ñu ngi rafetlu bu baax a baax ci am contentement bu baax a baax di wax rek comme ni ngeen ko déggee aussi noonu la amee parce que Moustapha Diop moom depuis lors mu ñëw Louga moom ci massification wàccoon ci terrain bi ñëwoon ne maanaam day dolli Macky Sall mais Mamour Diallo ba mu ñëwee ne day dolli Macky Sall lancé mouvement am ba mu lancé mouvement premier ministre dafa ñëwoon euh, président euh, euh, mouvement bi da nga koy dugal ci biir APR mais moom nag dafa fa depuis loolu dafa bañoon rek di continuer di liggéey ci mouvement am comme Moustapha Diop nag c'est le coordonnateur départemental de Louga léegi nag Moustapha Diop moom ci APR lay massué liggéeyal président Macky Sall parce que moom li ko ñor moom mooy président mag Sall am deuxième mandat ci loolu la doon nekk ci loolu la doon élection yaakaar naa bu mos a jaar Louga Moussa Diop moom moo moom lañ def mandataire mu gagné ko depuis 2014 kon donc nag bu ñu gisee ay jeunes yoo xam ne si ne si Mamour Diallo lañ nekkoon kiñ si gën a mën a wax mooy Papis Camara moom moo doon chargé de la communication de Mamour Diallo. ñu jógee ci Mamour Diallo ñëw ci euh, euh, Moustapha est-ce que am nañu taxawaay bu mën a tax ñu apporter dara ki nga xam ne moo euh, mooy chargé de la communication communication de Mamour Diallo ak coordonnateur am Dadien ak Ndiaye Ndiaye Ibrahima Ndiaye Ndiaye ñoom ñëpp ñu ñëw ñooñu nekkoon nañ ay ay nit ñoo xam ne ay nit yu clé Mamour Diallo lan donc ñooñu bu ñëwee mënuñu lu dul dalal leen yaatal leen parce que parti bi moo ëpp solo ay mouvement parce que parti dañ ko war a structurer ci kanam defaraat parti bi parce que ñu ngi jëm ay enjeu ay élection locale te donc yaakaar nañ ne Moussa Diop li mu def Louga hmm. ak li mu dugal Louga yaakaar nañ ni benn maire mosu ko def Louga soo Diop loxo ne ko dañoo bëgg ànd ak yow liggéey loolu mënuñu lu dul rafetlu ko yaatal leen en tan que président des mm-hmm. jeunes chargés des élections au niveau de la COJER de daal kon baax na jërëjëf ñu ngi lay sant baax di la gërëm waaw waaw euh, Alou vraiment kontaan na si yow it aussi parce que mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi def liggéey bu am solo euh, vraiment ñëpp xam sa liggéey ñëpp xam sa taxawaay si réew mi vraiment jërëjëf jërëjëf Diallo jërëjëf merci Alou Seynou merci